citoyen moo ñu bàyyi koon mu dugg ci dëkk bi. Mm-hmm. oui par rapport à la situation bi am foofu état bi ne débloqué na huit milliards. Mm-hmm. yoo xam ne dañ ko bëgg a dimbali population yooyu. Mm-hmm. gisuñu loi d'habilitation. état d'urgence décrété wuñ ko. donc ci yan modalité ñu war a dégager une telle enveloppe. waaw loolu c'est loolu problème mais problème bi gën a garaaw na loolu. problème bi gën a garaaw mooy. lii daf may jox l'impression que on en danger. parce que lii ni mu bindoo ak ni mu dale ci Sénégal te waru woon ne waru leen woon a bett moo tax ma xam ni sincèrement ñun nekkuñ ci sécurité parce que d'abord lii OMS wax na ko avant OMS di ko wax les spécialistes wax nañ ko depuis des années. maanaam mënuñu man man par exemple bind naa benn livre c'est goulot qui étrangle le Sénégal ma def ci benn chapitre ces eaux qui mangent le Sénégal. Mhm. maanaam ndox yi nga xam ne mi ngi lekk Sénégal ma ciy wax ni fii ak cinquante ans. fii ak cinquante ndox yu bari yu nekk ci tefesu Sénégal ndox yi nañ leen lekk maanaam tey boo xoolee les plus de sept cent kilomètres de côte du Sénégal. Mhm. fépp la géej gi di lekk peut-être ba mu des yoof xanaa géej gi moom yebul maam li maamu mais je de dire en dehors de périmètre boobu géej gi fépp lay lekk. bien ba pare les les crues yi OMS wax na ko ba tàyyi tout les agences météorologiques monde monde wax nañ ko ba pare même les agences de renseignement boo leen dee xool ci risques yi nga xam ne ce kon appelle les risques stratégiques yi Sénégal di courir crue yi ak avancée de la mer da cee bokk Sénégal dafa am dix risques stratégiques yu muy courir yoo xam ne képp ko xamul pour man waroo jiite réew yooyu mën naa cee wax peut-être ñeent wala juróom parce que am na ci yoo xam ne dafa sensible lu ma ko mën a wax mm-hmm. mais yooyu bokk na ci ndoxu géej gi ak ndoxu fleuve bi tous les agents de renseignement tey boo liree toutes les notes du mosaat sur le Sénégal da ngay gis ni lépp lu jëm ci ndox mi menace stratégique la yaa ngi gis ni pétrole bi ak gaz bi menace stratégique la bu ñu amee pétrole gaz ba léegi menace stratégique te menace stratégique boobu yépp ci Mauritanie lay jóge bien sûr xam nga da gis ni ni ñuy jaaye suufu Sénégal di ko jaay surtout ñu fi dëkkul menace stratégique la parce que bu ñu continuer fii ak téeméeri at du ñu am fu ñu bay menace stratégique yooyu bokk na ci euh, le fait que Dakar nekk fi mu nekk nii ba pare am benn aéroport militaire parce que capitalu réew du nekk ci chat ci digg bi lay nekk donc bref am na yeneen yoo xam nag mënuma ko wax parce que dafa sensible mais yooyu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dañ ko war a xam. Mhm. non seulement dañ ko war a xam mais dañ ko war a gere parce que yooyu yëpp bu ci dal ci réew mi da koy yàq est-ce que comprendre nga li ma. est-ce que comprendre par exemple. mamel bii volcan mamel bii nekk ci biir dëkk. mamel les volcans des mamel. Mhm. c'est une menace ñu ngi jël précaution yi waat dama lay expliquer. oui booy jiite nag jiite. mooy loolu booy jiite. da ngay prévoir da ngay fii. y a même pas un mois deux mois l'OMVS l'avait dit mhm. xam nga foo xam ni l'OMVS OMVS nen la day taal te bu fleuve bi débordé da koy yàq mhm. nga bàyyi ñu tabax ñu bay fa banaan lu ëpp quatre milliards bu yàqu mhm. mais loolu incompétence la loolu <laughs> mais loolu ñàkk xere ñàkk mën a liggéey la si góor foo xam ne yow OMVS nee na la bis bu tawee ndox mi day déborder da koy yàq nga bàyyi ñu bay fa banaana lu toll ni 4 milliards mu yàqu. mais loolu. est-ce que seen nawet la aussi. ak seen loolu loolu incompétence la. très maanaam loolu ñàkk xereñ la ñàkk mën a liggéey la. Mhm. réew mi il faut ñu xam menace stratégique yi nga xam ni mooy peser ci Sénégal. Mhm. buñ ko xamee malheureusement ñoom dañoo dañoo wax ba jël nguur gi te préparé wuñ leen ci dara. Mhm. cest à amuñu réseau amuñu xam-xam. connecté wuñ ci benn service de renseignement. Mhm. et puis ñii ñu bëgg a defal mooy les Russes. Euh, Russes yi bala ñu laa defal dara dañuy xam sa lépp ba pare. te bis bu ñu jëflanteeg Russes yi. Mhm. américains nañ ñu teg loo xam. dama lay wax rek parce que ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ni xam nga mënuma mhm. dëgg ci détail mais gis nga yii ñuy def ak Russes yi. ci ay matériels yu jëm ci renseignement. bis buñ ci deful ndànk. biñ bu ci def ndànk yàlla nañu yàlla yërëm. yàlla na yàlla yërëm. très bien le sens de ma question mooy gestion des finances publiques. depuis un bon bout temps amuñ ci benn aperçu. man foofu laa la doon interpellé ci huit milliards tey ak lañ def Touba. te déclenché wuñ plan Orsec doo xam yan modalité la état di. déclenché ak naka la xaalis di génne. voilà te doo gis ordonnance doo gis dara. c'est ça mon interpellation mais yooyu yëpp mais yooyu yëpp nag la ñuy doy OFNAC. Mhm. loolu rek lañ koy doy. maanaam gérer saytu xaalisu réew mi fan la dugg. fan lañ ko dugal kan moo fi dugal. ak lan moo tax mu def ko est-ce que amoon na ci droit et cetera. mais xam nga nag aussi xam nga yëf yi moom dañ naan sàcc bu raw jarte yàqi nelaw. xam nga maa ngi dégg Ousmane Sonko indi Jean Michel Chène di fii di wax ay waxam ci ci kii bi. Birahim Touré gis nga li mu ko tontu Birahim sekk yooyu dafa yomb daal. Mm-hmm. cest à nit ñi ñëw def li ñu def affaire yi ni fang. ARCOP annulé marché bi joxe argument yu leer ñëpp gis ko espagnol yi taxaw ni dañoo joxe quatre virgule cinq milliards lijjantiwu kan lañ jox xaalis bi ak lan moo tax ñu jox ko est-ce que jox du xaalisu guerre bu ñu joxe pour mën a pour que ñu mën a annul ñu mën a écarter entreprise sénégalaise. Mm-hmm. yooyu yëpp lijjantiwuñ ko. Mm-hmm. di jéem a réeral nit ñi ak di mais comme li ñuy wax rek xam nga affaire yi moom état moom heureusement. Mm. dafa am lu xew. lépp lu ci xas ba jàll. ba dugg ci document yi boo ko réglé wul it tey dañ ko réglé leen scandale amul nee na euh, opposant yi ñooy wax rek di teg seen ay stratégie mais y pas de scandale ci seen magistère waa léegi Bira li Birahim Seck wax lan la wala loolu waxi daf la te il est la société civile il est quand même crédible dans la lutte contre la corruption Birahim Seck c'est ça li mu wax dafa leer très bien alors scandale mënta passé li xew ONAS maanaam ñu def appel d'offre ba pare ay entreprise gagné benn ministre bind na ñañ a gagné appel d'offre bi nañ leen écarté jox ko yeneen entreprise hmm. loolu scandale fa la yem. très bien alors dinañ ñëw. déggoo li la fa la scandale yem. <laughs> dinañ ñëw ci lu gën a yaatu. ci mu bind lu tax mu bind ko fan la ko teg. lan moo tax entreprise yooyu mu bëgg a dugal. Hmm. pour écarter entreprise ak appel d'offre yi lan moo tax mu bëgg leen a dugal. très bien mais yooyu. voilà yooyu may wax meeting arena bi bëgg naa nga ñëw ci lu lu bari bari mais mais tout d'abord euh, front sociale bi. Mhm. université dañu xëy gaa ñi di laaj seen i bourse di jaaxalu la. ah loolu la c'est-à-dire xam nga la gestion du pouvoir est le meilleur ennemi du populisme. du populisme waaw c'est-à-dire que mën ngaa ñëw université gëmloo leen lu ne étudiants yi gëm la bay rey seen bopp ñu laal la gaa yi taal université bi yëpp mais boo ñëwee ba yor yëf yi da ngay xam ni mais mais budget bourse Sénégal c'est dans l'ordre de plus de soixante-dix milliards par année c'est beaucoup d'argent <laughs> xam nga baax xam nga baax ma je veux dire fay bourse c'est tracas dëgg la au quotidien boo xam ni góor yi fi nekkoon moom lañ jànkoonteel. boo nekkoon ci bit nag da nga yaakaar ni lomb yomb la. ñoom dañoo ñëw wàññi ko. boo ñë waaw déjà déjà. li ñu def xam nga kenn mësu ko def et puis le ministre dafa dafa assumé. voilà xaalis amu fi. voilà wàññi nañu bourse voilà mm-hmm. donc kon xam nga ñi fi nekkoon ñu leen di critiquer jàmbaar la ñu woon de. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. bon li fi ne daal mooy. Euh, lu ñu gën a dem. lu ñu gën a dem. nit ñi di gën a xam réalité bi. lu ñu gën a dem nit ñi di gën a xam ni c'est pas Pastef que Pastef ñëw na nguur gi que le remède day xel Coca Cola. te loolu il faut nit ñi gëm ko chaque jour mu wax ko jeunesse bi dama ni leen li leen gëm gëmloo woon. du dëgg. mësta am mënta am. te mënta am ci mais boo xoolee ñi dem Dakar Arena di nga ko gëm. nga ne Pastef qui a mobilisé rempli le stade. avec des jeunes nga gis nga meetingu gis nga meetingu Ablaye ci période pré-campagne ma jox la benn exemple bu ndaw. est-ce que gis nga meetingu Ablaye Wade yi bi muy perdre pouvoir est-ce que gis nga meeting yi Amadou Ba def fii ci élection présidentielle bi. Sénégal boo amee ay car mën a def nit ñi xaalis mën leen jox lu ñu añi mais attends Sénégal mobiliser moom lu yomb la Sénégal. foofu entrée payante la woon. non boo góor gi boo jëlee say responsable politique dégg nga ci ay car jox nit ñi xaalis gis fu ñu mën a fayee nit ñi dañuy fay ñëw. Hmm. non fii réew bi dafa tuuti ñëpp xam nañ li xew. ah mais ñu mën a def.